lii nga xamante ni ay ndimbalu jëm si population bi ñu ñëw teg ko sa loxo ngir jàppale maire bi ci liggéey bi muy liggéey ci dëkk bi ñu war ko see fekk si en tant que talibé ci biir dëkk bi loolu moo waral démb bi nga xamante ni ñëw nañ fi dem ci sëriñ Moussa Nawel dem ci sëriñ taxaa ñëw ci yow wax la li nga xam moom la namm indi fii ngir ay moto pompe yoo xam ni xam na ni dëkk bi ndox mi bari na. maire baa ngi si def lu mu mën ak état waaye damay jàpp ni kenn ku nekk war ngaa jël saw ñaq nga def ko si dëkkub Serigne tubaa bi noonu laa ko gisateen moo tax ma doxale ko noonu jël toll si ñaar fukki moto pompe ak ñaar téeméeri litre essence ak deux cent cinquante mètres euh, tiwo ay raakool ngir jébbal la ko yow mi nga xamante yaaru mbirum sëñ Touba fii kàddu sëñ Touba di sàkku nag mbàkki nga ñaanal ñu yàlla sax ñu sig taalibe nga sàkku nga ñaanal ñu yàlla xiir ñu si def lu baax ndax adduna bi kat xam naa ne képp koo xamante ni liggéeyul Sëriñ Tuubaa perte nga te Mbàkke kenn mënu laa fay sa jataay bi jataayu murit yëpp si war a kontaan li la Sëriñ Muntaxaa dénk day jox la ko matale nga ko nga ko tamit képp koo xam ne dëkk nga Tuubaa fierté la war a ci yow ndax sa taxawaay ak sa pas ku la gis ngay dem demoo ngir sa soxla soxlaa Sëriñ Tuubaa rek dox kon ñun ñi nga xamante ay taaliban dëkk si dëkk bi day Mbàkke mënuñu laa fay ñoo ngi jël lii di lu ko jébbal nga xamante ni kat ab liggéey la rek boo xam ne dañ koy ñëw sof si liggéeyu maire bi nga xamante ni Abdou Lahad Ka mii moo ko tàmbali muy liggéey bu am solo ndax bi ko sëñ bi dénkee dëkk ba léegi lim si man lépp mi ngi koy def kon ñoom jaar na ñun ñu accompagner ko jàppale ko ngir jëmi si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul loolu rek Mbàkke moo nekkoon tànk yi ak délégation bi mu àndal bépp di leen nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha di leen tax nga jëf ko. mi nga xam ne lii moo tax nga jëf ko. ndax sëñ Tuubaa tax nga jëf ko. ndax sëñ Tuubaa moo tax nga jëf ko. te moo fi nekkal sëñ Tuubaa. te moo fi nekkal Serigne Tuubaa. te lépp looy def itam. te lépp looy def itam. ci lu ma mën a seere. ci lu ma mën a seere. da nga ko ci laaj ndigal. da nga ko ci laaj ndigal. te lu la ci wax nga def ko. te mu la ci wax nga te loolu mu ne su ko weesu. kon ñu ngi yëkkati cant gu rëy. ak ngërëm. di ko teg ci sa loxo. di la ñaanal itam. ci barkeb Sëriñ Tuubaa. mi nga xam ne moo tax nga jëf ko. mi nga tax xam ne moo tax nga jëf ko. yàlla na la ko nangul. yàlla na la ko nangul. yàlla na la kattanal. yàlla la kattanal. ba loo man ren. ba loo man ren. bu déwénee nga mën lu ko ëpp. bu déwénee nga mën lu ko ëpp. ndax xam naa sa yitte ci Touba. ndax xam naa sa yitte ci tuubaa ndax loo am rek delloo nga leen ko. ndax loo am rek delloo nga leen ko. loo gis lu baax loo gis lu baax it. indi nga ko Touba. nga ko Touba. lu sëñ bi wax itam. lu sëñ bi wax itam. doo ca teg kaddu. doo ca tegu kàddu lu weesu jëfe ko. lu ko. loolu mën naa la koo seereel. loolu yi mën naa la koy seereel. waaye nag na sa njort rafet waaye nag loo na sa njort rafet bu baax. te sam xel dal. te sam xel dal. ndax sa maam sëñ ndax sa maam Serigne Abdou lim bokk ak sëriñ bi. lim bokk ak bi. waaye dafa jaay lépp jënd ko ak taalibe. waaye dafa lépp jënd ko ak taalibe. liggéeyal sëriñ Touba. liggéeyal sëriñ Touba. ba sëriñ Touba gërëm ko. ba sëriñ Touba gërëm ko. daan ko wax ne ko sama doom nga. daan ko wax ne ko sama doom nga. loolu ab cër la. loolu la. waaye yemoo ca. waaye yemoo ca. nga ràññee itam. nga ràññee itam. Eh, sa sa wayjur di jàmbaar. sa wayjur di jàmbaar. teg la ci yoon. teg la ci aw yoon. nga topp yoon woowu. nga topp yoon woowu. ba moom moo ci boppam. ba moom moom waxal ci làmmiñu boppam. moom sa wayjur. moom sa wayjur. ne la gërëm na la. ne la gërëm na la. ngërëmul wayjur nag ngërëmul wayjur nag. kenn du ko am di torox. kenn du ko am di torox. alhamdulilah kon na sa xel dal bu baax. te li ngay jëf ci nit ñi itam. te li ngay jëf ci nit ñi itam. te Sëñ Tuubaa tax. ci yow lay dellusiwaat ci yow rek lay dellusiwaat. kon ñu ngi lay sant bu baax kon ñu ngi lay sant bu baax a baax. di la gën a soññ jëf yi ngay jëf. di la gën a soññ nag ci jëf yu baax yi ngay jëf.